kumbe jala ongo zumbe jala nange ramange doye ongo ngozumbe bre mandi dama made ngozumbe bre mandi dama made ngozumbe bre mandi dama made ngozumbe bre mandi Wamdangan makne calande Tunggu sube sun wamdangan makne calande Tunggu sube sun wamdangan makne calande Tunggu sube wamdangan makne calande Nungo sumbe sunuam langa mane jalane Nungo sumbe sunuam langa diggante Neymar wala nga ne Pape Diame moom moo jóge su ma nee John Waar sama xel dem si sama grand frère Cheikh Ndour professeur d'histoire géo depuis John Waar Seri Fat maa ngi koy bëgg di bëgg waa John Waar yëpp les ressortissants de John ñi ne si diaspora bi ku si mel ni Thiaré Sarr maa ngi koy bëgg ak frère am Pape ay ca ba léegi rek ci tirage beneen tirage angoog ci digg géew ñaari mbëri ku ne ngeem bu xonq nga yore ñaari mbëri ne ngeem bu xonq nga yore gu ma leen nag ne ko ci xamee gu ma leen nag waaye bëri njool ak ndaama waaye différence de poids bi dafa ëpp ñaari mbëri différence de poids bi dafa ëpp mais ñaari mbëri différence de poids bi na parce borom rouge la féete nii à droite mooy Ndefleng. ñaari rouge la waaye moo leen woon ginnaaw Basir nee na ma borom lu rouge li mooy Ndefleng waaw Ndefleng daw na jël sa waay rasu boo seetloo si taay Ndefleng ko ëpp waaw Ndefleng daw na jël ko sol ko bëgg ko forcer sa waay oh xale bi nee naa leen xale yi daa bëri trompeur da koo bëggoon a xar wéyale ko oh daanoon rek tey ma la. bu la daanee woon noonu tey say fan si rey la te ñu refoulé la génne la Gambie yóbbu la Guinée nga béyi ñambi ah Basir bu ko boy bi daane woon noonu yóbbu ko Guinée mu ñambi wala mu béyi pataas nee naa xale yi daa bëri waaw dew na jëlaat ko bu ko forcé boy bi ko yóbbu ko daan ko exploit mais parce que dinañ ko yóbbu Guinée laa ilaaha mu béyi pataas jël ba rëy na jël biñ la daan rëy jëli biñ la daan rëy na nee naa leen xale yi ay jaba rek ci tirage bi beneen tirage angoog ci digg géew bi. ñaari mbëri ku ne ngeem bu xonq nga yore. ñaari mbëri ku ne ngeem bu xonq nga yore. xamee gu leen nag. ni ko ci xamee gu leen nag. waaye bëri njool ndaama. waaye différence de poids bi dafa ñaari mbëri différence de pas bi dafa ëpp mais bas ñaari mbëri différence de pas bi ëpp na basi. borom li à droite mooy Ndefleng. ñaari rouge la waaye Ndefleng moo leen woon ginnaaw Basir nee na ma borom lu rouge li mooy Ndefleng waaw Ndefleng daw na jël sa waay rasu boo seetloo si taay Ndefleng nga ëpp waaw Ndefleng daw na jël ko sol ko ba ko forcer sa waay oh xale bi nee leen xale daa bëri trompeur. da koo bëggoon a xar wéyale ko oh bu la daanoon rek tey ma rey tey ma rey la bu la daanee woon noonu tey say fan si rey la te ñu refoulé la génne la Gàmbi yóbbu la Guinée nga béyi ñambi a basin bu ko boy tey ñu génne ko Gàmbi yóbbu ko Guinée mu béyi ñambi wala mu béyi pataas nee naa leen xale waaw dew na jëlaat ko bu ko forcé xar na ko yóbbu ko daan na ko exploit mais Baski dinañ ko yóbbu Guinée de. laa ilaaha mu béyi bataas jël ba rëy jël biñ la daan rëy na jël biñ la daan rëy na nee naa leen xale yi daal. ay ca ba rek ci tirage bi beneen tirage angoog ci digg ñaari mbëri ku ne ngeem bu xonq nga yore. ñaari mbëri ku ne ngeem bu xonq nga yore. xàmmeegu ma leen nag. ni ko ci xàmmeegu ma leen nag. waaye bëri njool ak ndaama waaye différence de poids bi dafa ëpp ñaari mbër différence de poids bi dafa ëpp mais bas ñaari mbër yi différence de poids bi ëpp na basi. borom mooy Ndefleng. mooy ñaari rouge a waaye Ndefleng moo leen won ginnaaw Basir nee na ma borom lu rouge li mooy Ndefleng waaw Ndefleng daw na jël sa waay rasu. boo seetloo si taay def leen ko ëpp waan def leen daw na jël ko sol ko bëgg ko forcer sa waay oh sa waay eh. xale bi nee naa leen xale yi daa bëri trompeur da koo bëggoon a xar wéyale ko oh, bu la daanoon rek tey ma bu la daanee woon noonu tey say fan si ñu refoulé la génne la Gambie yóbbu la Guinée nga béyi ñambi ah Basir bu ko boy bi daanee woon noonu tey ñu génne ko Gambie yóbbu ko Guinée mu béyi ñambi wala mu béyi pataas nee leen xale yi daa bëri trompeur. waaw daw na jëlaat ko bu ko forcé booy bi xar na ko yóbbu na ko daan na ko exploit mais bas kii dinañ ko de. laa ilaaha mu bëyi bataas jël ba rëy na jël biñ la daan rëy na jël biñ la daan rëy na nee naa leen xale yi daa. ay jaba léegi rek ci tirage bi beneen tirage angoog ci digg géew bi. ñaari mbëri ku ne ngeen bu xonq nga yore. ñaari mbëri ku ne ngeen bu xonq nga xàmmeegu ma leen nag ne ko ci xàmmeegu ma leen nag waaye bëri njool ak ndaama waaye différence de poids bi dafa ëpp ñaari mbër yi différence de poids bi dafa ëpp mais bas ñaari mbër yi différence de poids ëpp na basi. borom li ñu à droite mooy Ndefleng. mooy Ndefleng ñaari rouge la waaye Ndefleng moo leen won ginnaaw Basir nee na ma lu rouge li mooy Ndefleng. waaw Ndefleng daw na jël sa waay rasu boo si taay Ndefleng ko ëpp waaw Ndefleng daw na jël ko sol ko bëgg ko forcer sa waay oh sa waay eh. xale bi nee naa leen xale daa bëri trompeur da koo bëggoon a xar wéyale ko oh bu la daanoon rek tey ma rey tey ma rey la bu la daanee woon noonu tey say fan si rey te ñu refoulé la génnee la Gàmbi yóbbu la Guinée nga béyi ñambi ah Basir bu ko boy bi daanee woon noonu tey ñu génne ko Gàmbi yóbbu ko Guinée mu béyi ñambi. wala mu bëy patas nee naa leen xale yi daa bëri trompeur waaw dew na jëlaat ko bu ko forcé booy bi xar na ko yóbbu na ko daan na ko exploit mais bas kii dinañ ko yóbbu Guinée de. laa ilaaha mu bëy patas jël ba rëy na jël biñ la daan rëy na jël biñ la daan rëy na nee leen xale yi